yi xeetu nit yu am valeur anytime gis ngeen du waree taat rek lii rek da leen jàggal jàngal àdduna anytime du da ngay génnee say taat rek wala nga def ay bécco pour nit ñi xam ne yaa ngi anytime xoolal Zeyna mu amee classe xoolal Viviane Ndour bii personnalité bii mariage dootu fi am yéen jël xoolal lu ngeen mariage dootul amati Sénégal amul ko mën a mariage bu neexee nii ci Sénégal amul Adama Bey Zeyna à vie kenn mënu leen a dab ci àdduna bi ci mariage amul fii ci Sénégal du ngeen ay nit